الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي mbokk yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen balaq di leen balaq kaddu yi nag mënuñu ko woon wax sax li tax ñu ñeme koo wax mooy li sëñ Mountakha wax ci sunu kanam jëmale ko ci sëñ Modou nag lu baax ak jëf ju baax ju dem ba si fii su fekkee ne bis ba muy sosu yaa ngi teew te mosoo cee génn ba tey war nga koo seere seere si xëy na sawar na waaye jëf ji moom seere na boppam waaye nag historique bi lu mat a xam ne mooy Cheikh Saliou Mbacke ci boppam di doomi Serigne Touba daayira bi ci moom la sotti ko sëti Serigne Touba yi jigéen yéeg yu góor yépp bokk ci keroog ko sosee ba léegi ñëpp jàmbaar lañ de waaye damay wax ni sëñ Modou Lo li may seer te yàlla tax su fekkoon ni deful nii mu def kon tey du ñu inauguré li ñu inauguré résultat yi li ñu am it duñ ko am ah, kon li ma bëgg a wax mooy kenn ku nekk dégg na li sëñ bi wax ci cant bi mu jëmale ci moom waaye jàpp ci teebaay yi te yàlla rek tax moo tax ñu am barab bii ak résultat yi ñu am loolu man mënu ko bañ seere ndax keroog bu ñuy sosu ba sëñ Saliou bind ay xasida di ko joxe naan jàng leen ko daayira Safinatoul Amaan ñaanal ma ca ñaan jullit ñi man mii maa photocopie di ko séddale bokk ci membre fondateur ba bis ni ki tey jii kon lii mu def nii yàlla rek tax ak yonent bi Sëriñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa nag mënut a weesu lii wala boog dara jiituwul ci li ni ko sëñ Mountakha waxe man kàddu yu seere rek laay def ak sant ak loo xam ne ànd naa ko moom dolli ci tuuti loo xam ne yéen ñi xamu leen ko. li may jeexal rek waxoon naa ko nag mooy seere yoo xam ni bi Safinatul Amaan di sosu ba léegi 97 ci kanam sëñ Saliou mu ànd ko sëñ Modou Lo seere yooyu laa doon seere ak sëñ Modou Lo leneen li ci mu wax yëpp dégg nañ ko képp kuy mbokk wala ngay xarit wala nga dëkk ci dëkk bi liggéey bii lu ci laal lu ne foo déggee kàddu war jóg kon noo ngi jub màggal gi te gis ngeen dëkk bi ni mel lenn lu nekk lu fi nar a yëngu safinul amaan sëriñ bi joxe na ndigal ngir lenn loo xam ne bëggatoo sëriñ bi bëgg na ko loolu du am ba ca toppaat mooy li ma doon jeexale mooy safinatul amaan am na loo xam ne dox na ko te ñu bari xamuñu ko man mii maa nekkoon chargé de mission bi Youssou Ndour ñëw na fii xaaji guddi Moussa Dieng Kaala ñëw na fii xaaji guddi ndax lañ doon def ci njuumte maa daj seen kaw ca Ndakaaru ma ànd ak moom suñ mënul nii 3 heures du matin lañ toog maa ngi Moussa Dieng Kaala ak sant Sorang ñuy réunion ba 4 heures mu tuub jéglu ba noppi ni moom du ci yem waaye képp ku gisati mu koy def dina ko fas yéene mu bàyyi ko ak musicien la am na benn waay boo xam ni Jean-Louis Alphonse Sarr ab catholique la dafa waxoon ni je suis venu pour l'hérité le mouridisme wax ci Serigne Saliou doy waar bi réeral ko yu bari ñu ngi def rek jamono man ñu ma dal ci kawam ca Petit Palais ca Ndakaaru Médina ba mu porté wu plainte dem naa tribunal un an yoo xam ne benn mur jégal ko seen mur mi rek moo may dem moom tribunal Xaasim Touré di avocat bi ba li mu fi ñu mujj mooy kenn attewul juróom benn weer ci lañ ma woo ci ginnaaw ni moom Moussa Jean-Louis Alphonse Sarr faatu na atte ba léegi kenn attewu ko te boobu dafa bëggoon tilimal yoon mu lépp nag dañ ko ci chargé de mission ci tur Samina Omar kon sëñ Nour lii mun ma ko war a wax nu ànd liggéey bi boobu ba léegi ndam lu mel nii am ci cant gu mel nii am ci bu fekkee sëñ Mountakha ma dëgg kenn nettali ko yàlla na yàlla dimbalu jëm ca kanam sëñ Tuubaa rek li mu wax moom laa koy téye ñaar rek a nekk ci dëkk bi ak yoonu murid yëpp ñaar a ci nekk yoon mhm. ki ko nangul déggalu ko ki ko nangul déggul ko nag moo nangul déggul ko ki moo nangul lii mhm. na ci yenn yëpp lépp li ko tilimal ko gàkkal koo ku ko def ku ne na xam ne gëmoo sëriñ Tuubaa ku la ko mën a wax laa wax Tuubaa bu teewoon sëñ Saliou bu teewoon ku fi mën a teew lépp loo xam ne day jàdd li sëñ bi digle ku ko def laa ni gëmul sëñ Tuubaa ku la ci jàppale gëmul sëñ Tuubaa jërëjëf jëf sëñ alhamdulillahi karim minan ala istighali bi furudin wa sunan سكرته لأن قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهل